si ci ponk yi li ci yenn ñu ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku bëgg foo joxañ jant ba fenk fa delta mu fa jant ba jugee yenn organisation société civile yi jógoon démb sol seenu dal demoon wuy premier ministre Amadou Ba moom la journal L'Observateur xëyee ci xëtamu njëkk yéenekaay collectif suñuy milliards du rees gisee nañu démb ak premier ministre Amadou Ba doon waxtaan ak moom ak it doon leerlu ci li gouvernement bu Sénégal nar ci li waa Cour des comptes wax ne moo xew ci xaalisu fond force Covid 19 bi gaa société civile bi nee nañu premier ministre Amadou Ba li ñu bëgg moo di yoon dem ca ba jeex lijjanti ko nu mu gën a nit ñi mën a xam fan la seenub xaalis dugg ku ci jël loo moomul nga goxi ko bàyyi yoon dal ci sa kaw mooy ku def lu mu warut def ci xaalisu fond force covid bi maanaam ay coupable fanweeri organisation société civile ak lu teg ñoo gisee démb ak premier ministre Amadou Ba ba premier ministre xamal leen ne dinañu ci ubbi ay information judiciaire kañ lay doon yéenekaay bi nee nañu waxu leen ko ndax joxu leenub dat nee leen it sa mënuñu fee nekk naan dañuy topp ku nekk li nekk ci xët mu njëkku kàddu premier ministre Amadou Ba la yu mu wax démb ci Quotidien nañu état bu Sénégal jël nay engagement ci kanamu société civile gi ngir leeral li waa Cour des comptes wax ci seen rapport bi ndajem société civile beeg premier ministre Amadou Ba Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne yombul woon ne gaañu joxalante nañu fa ay kàddu yu tàng jër ñooñu société civile bi bi ñu yegsee dañoo teg ci taabal ji coow rapport Cour des comptes bi waxi troisième candidature bu Macky ak mbirum ñi ñu téye ci kaso bi jamono ji te ñu jàppe leen ay otage politique ak otage d'opinion ba ñu waxee ba sottal Vox ñu gën dugal seen loxo ci lu dëgëral système gouvernance bi ci réew mi ngir yu mel ne yi ñuy wax bañ fee amati fonctionnaire yi ñu épinglé ci rapportu Cour des comptes bi te ñu leen di séntu ca kanamu chambre disciplinaire financière source ne nañu bu dee danañ fa demit du doon léegi du doon fii juróomi weer du doon fii juróom benn weer ndax ëttu atte boobee mu di chambre disciplinaire financière mi yeneeni dossier yu mu réglégul te ña la Sénégal nañu Aminata da inspection générale ak environnemental ga mu jiite woon Mimi Touré ci Walf Quotidien Mimi Touré ci Source A Mimi Touré ci Bës Bi Le Jour Mimi Touré ci ma ngay accélérer bu baax baax jëm ci kaw Macky Sall Aminata Touré nee na dafa mel ne ku ñu yeew ay loxoom ci rapport Cour des comptes bi ndax ab gorom di Mansour Faye dafa bokk ci ñi ci épinglé moo tax Macky du ca mën a sori ci la Sénégal nañu fa moom Aminata Touré amul sikki sàkk ci ne bu Macky sampem dëndam doon candidat 2024 candidature ba buy yegg ca conseil constitutionnel waa conseil constitutionnel di ko rejeté waa SAP ko rejeté nekk mbuur ci coowal zone boisée ba fa yëral xët mu njëkk journal l'info njiital SAPCO di docteur Souleymane Ndiaye li mu njëkk leeral ci nekaay bi mooy forêt classée bañ fa amu fa ndax nee ko nee na 9 fa mairie bu Saly am fa 3 ngir war faa ab centre de santé akub lycée li xew yépp moom jàpp na ne manipulation la ñu romb mbuur dem ca njaafaat ga ca Kaolack jàngalekat bu góor ba ñu fa agressé woon bu yàggul l'observateur nee nañu Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 gi fi woon keroog benn fan ci weeru janvier am na lu ca xew ñoom ñaari mbër sunu lamb nee nañu CNG bi dagg na leen xaalis bu bari ndax dañoo wàcc ñoon li CNG bi dagg ci reliquat ñaari mbër yéenekaay bi nee nañu buñ ko boolee ëpp na juróom benn million Balla Gaye 2 dagg nañu ko 2 millions ca Pàcculi de Pikine mu di Boy Niang 2 ñu dagg ko 3 millions